أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعصى الله منه أني أعوذها بك وذريتها من الشيطان رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فتاه وهاب يا رزاق يا مالك لك وهب لي وارزقني بكون الآناء دقيق الأزل عاجلا بالبشر مع مرد حتى أقيم لدين الله أركانا يسر بواني طوبى وحمني وقني أدوراه وتجيب لسما إسكانا لك السماء والأرض والأرض بالله مشاركين يا رب مشكورا أجيب وسلي بسليمين مع سيدي محمد asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa ci coono yi taxaw na moom xam naa sax waxtaan wi du du gën a leeral dañ ko bëgg waaye daal di alxidma suñ boobu fi laajoon laaj boo xam ne dafa wax ne ñenn ci ñoom ñu ñuy tuddee as salafiya salafiste yi wala al wahabiya wahabit yi xam ne da ciy dégg ñu wax ne ñooy baatal lu ñuy tuddee al aqida al ashariya moom loolu loolu daal mu jaaxal ko bëgg xam ba xam lan moo tax coow loolu am ci tënk suñu ko jaay doon na def doon doon na ci wax ak njëlbeen ak njëlbeen boo xam ne leeraloon na ca nga xamante ne xam-xam la boo xam ne jumbul ku ko xam ne bu ko tey yëngu jërul nga ci nga di ca xuus lool kon danañ ci def leeral goo xam ne mën naa am dana doy ku ku ku ko déglu te te bëgg lu mu jëriñoo sallallahu alayhi wa sallam moo fi indi lislaam yàllaa ko jox alxuraan wàcc ko ci moom mu ànd ak lu ñuy wax sunna nga xam ne ci ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lépp loo xam ne wér na cëng ne moo ko wax loola loola lañ tudd sunna loola loola nag bari na ay werante ndax alxuraan la ulamaa yëpp dëppoo ci ne sax ka ni kaamil bii ñu ngi jur ñëpp ñoo ci bokk yam loolu mu wér na chian yaag ñu tudd al sunna ñëpp ñoo ci bokk yam maanaam képp koo xamante ni ab jullit nga kaamil bi rek nga am boo demee Iran ku mu xaddasa boo demee Makka Madina boo demee Sénégal boo demee Amérique boo dem kaamil bi benn la téere bu boobu moom leer na wér na ci ñu ne kat nii mu mel mel wér na waaye maanaaya digg digg interprétation ba moom ak wute am na ja kon seen yëpp seen yëpp seen yëpp dilaala la seen yëpp seen yëpp xam ne seen yëpp dilaala dilaala gi maanaay moom kenn ku nekk dañ cee am aw diggin ndax aw aw aw lakke dem dem menoon bi sallallahu alayhi wa sallam làqoo li tax sunna soosu moom beneen am werante ci mooy téeméeri at am na ko ginnaaw yonent bi salaam ñu soog koo bind mooy ca alxarnu saanil hijri jamonoy Seydina Omar ibn Abdul Aziz moo ko moo moo moo joxoon ab bind ngir ñu dajale ko ku ne xam ne yonent bi salaam saxaloon ne wax na ci xadis ñu ne ne gaa yi kat bu leen bind xadis ndax booba daa bañ ginnaaw alxuraan ak xadis lépp arab la te te ay waxam ci arab di arab yu foor yu kawe yu set kon ay waxam mën naa jaxasoog alxuraan rawatina sax ñuy wax al ahadisul qudsiya nga xam ne moom yàlla koy jox maanaam yi mu moñ ko ci arab yi loolu kon taxoon taxoon taxoon ngi am na ñoo xam ne ginnaaw bi sax day gannaaw bi lépp dëgëree yoo xam ne avant léegi kaddu yi nopp yi mel nañ ko xam nañ maanaa yi xam nañ xam nañ taar bi mu am xam ne nga xam ne waxi tu islam lu mu taaru taaru du ko jot kon booba nee ñu waxaan ne ne comme neex nga bind ko waaye kon kon nga xam ne kon njëriñ kon kon kon gars yi kon ñu ñu koon bind dañ ko bàyyi woon noonu rek ba ci téeméer ba nag kon kon ci lañ ko bind nga xam ne kon xew-xew yu bari am na fi xeex yu bari coow yu bari am fi ba gaa ne politique la ba gars yi xëccu ci bi bi Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam làqoo rek coow am na xilaaf ba gi lu mu doon ku ngi toog nga xam ne foofu la xilaaf ba gi juddoo lu ñu tuddee al imaama njiit njiit njiit nga xam ne njiit kuy jiite jullit ñi loola coow am ca waaye coow la moom daal dinay dal ba Abubakar Siddiq la dinaa toogee ginnaaw ba Omar ginnaaw ba Ousmane waaye ginnaaw Ousmane si si seen Ousmane nag réewan moom si na li toog coow daal di daal di daal di juddu seen Ousmane nañ ko boomee góornóoram ba nekkoon Égypte te nekkoon koo xam ne yéen salaam dafa neexaloon directam muy bokkoon si seen Ousmane làqatu ba ginnaaw ba sëñ Asalaam jumaa si sëñ Asmaan mu génn sëñ Asmaan ci ak laaj biram gu ëpp daal di koy fal ci Égypte xam ne nga nga nga xam ne la am ci ay jafe-jafe yëpp kon daal di juddu foofa ñooñu daal di koy mere ba for jóg ne dañuy daal ku ki nga xam ne moo leen teg coono bi muy lu gudd gudd ay ay ay ay werante yu bari am ca ba loolu la amee jamono kera ba bañ koy boom ku ne xam ne ne moom it problème am na ndax saxaaba yi am na ñoo xam ne seetaan yi loolu kon am na kon lu xew kon booba ba mu demee si si dinaa Muawiya mu jóg ku ne xam ne bokk na ci ci katabatu wax yi ñu ne bind wax yi waaye mu jóg tuuti juddu kon ginnaaw financement intérêt mu kon financement mbokkam te kon xam na ne kon kat saam googee mu nekk final yi bu toogee jumbul kon mën naa am ñu folli ko nit ñi nga xam ne gouvernement bu bees rek état gouvernement bu bees moom bu ko ak état gouvernement bu bees bu bees rek dañuy changé jëfle waaye di jóg kon andi benn slogan boo xam ne mooy kat direct yi président Ousmane lay laaj xalifa boobu boo bees bi wax lu ko xam ne lu mënta nekk la mooy nañu rey waaye si mbooloo ma nga xam ne ñu ko boobu ñëpp nañu rey ku nga xam ne loolu mënta nekk fitna la te loolu am na sëñ Seydina Ali ne ko loolu amoon na ci jamonoy Ousmane koo xamante ne doomu Seydina Omar joo xam ne dañ ko waroon a bu rey loola Seydina Ousmane daal di ne Omar mënu mënutoo jógee bëgg démb may rey doomam kon loolu kon ku nga xam ne ne kon maanaam léegi daal li fi nekk mooy ma maay joxe diir sëy sëy dinaa yu ne loolu loolu mën naa ko bi la di diir la mën naa koo joxe waaye nag mënuñoo dem di di xeex nag ab kuréel ab ab dëkk moom ñoo ñu leen di rey ci loolu loolu moo ci nekk. kon xam ne loolu moom xel mu sell mënu ko mayu ko waaye kon ku xam ne slogan bu politique la woon. ba loolu amee xam si si si si namawee dara dara wékkoo mbubbam Seydina Ousmane mañ ko boomee dara ja daq ja loolu aaday naar la it. aare naar la ñu xam ko bu baax nag aare naar la ba léegi si naar yi bu ñu amee ku rey seen mbokk bu ma leen dañ koy lamboo di jooy ak def nangam di wane ne danañ koy loolu moom aare naar la du diine ba loolu ba loolu la amee gén si na liu si na accident waawee coow li am léegi am kuréel bu bu juddu kuréel boo xam ne mooy ñi nekkat ñoom kat waaw ñaari saxaaba yi di xee daal xamuñu xamuñu ñu ngeen pexe ñoom ñëpp ay saxaaba lañ ñu ñu sell ndax kenn kenn dafa ne kii mooy mooy borom këru Fatimatu nga xam ne moo joxe traité waa Salaam kenn ka mu kon catégorie waaye kon daal ñu ne ñoom ay wax ay waxatul lañ ñu maandu lañ kon moom seen biir ñun daal ñu xam mooy arjo nal xukuma ilallah ñun daal kon kon léegi jox nañu atte bi yàlla yàlla xam moom lu xew lu mu def ñu tudd leen almurjiya Sina Aliou ba coow la kii ba. ba nga xamante ne Aïcha ma nga xam ne problème bu gudd boobu mooy Aïcha ak sayyidatuna Aïcha te te daan daan xaaj ku nga xam ne ne xadisul ifk ba ci wala bu mbaree ba si islam laaj waaw luy pexe signal yi bokk na ko ñu ko conseillé ne ko kon ku toll ne personnalité bu te ne yow bu ñu tumaale lee soxnaam ci nangam kon loolu kon moom la ci gën moo ñu tàggoo ndekete foo ginnaaw boobu ay ay riiru nga la woon wala ay xayma tiisee loo xam ne moom looy wax jibita ma mën ko dégg ñoo ëpp kenn dégg ko Aïcha dégg ko daal daal daal ci mere Seydina Aliyu ba tax bi tam islam làqoo noo ne Seydina Fatimatu nga xam ne mooy soxna si si Seydina Aliyu jóg ne day jël day laaj miraasum baayam ba Seydina bu kenn ne ko déet ginnaaw Seydina Aliyu borom këram ci boo ko seetee contexte bi ne ko déedéet ndax man dégg naa ci no islam mu ne kat nahnu masal anbiya laa nuras maatara nahu sadaqa noonu noonu noonu yonent yëpp maanaam kenn doon doon luñ bàyyi lu ne maanaam léegi abstract la ku te ko nga xam ne xadis bi kon bu dee moom da ko dégg kon ko nga xam ne ahaad la kon nu ñu cee binaa ab xukum waaye ginnaaw mooy njiitul état bi moom mooy njiitul réew mi kon kon adolescent bi kon kon suba kon am na kon doole ja waaye loolu ku nga xam ne kon politique kon judd na ANC moom nga xam ne kon moom lay sinaliw conseil woon si islam ngir mu ba ko ba Muawiya jógee di laaj direeti mbokkam ma ngir politique moom it mu ànd ak Seydina Muawiya ngir politique ngir gannaaw kon Ali bi nga xam ne mooy adversaire am démb te adversaire bàyyam kon léegi kon moom it bu ànd ak en tant que umu mu nia bokk ci soxna yéen islam kon dana dooleel Muawiya ngir ñu mën a not Ali daal ciy jóg maanaam léegi nga xamante ne politique daal di juddu mooy lu rëy rëy kenn sab saxaabi yi ak ak kenn ci umaatul mu ñu nii kii ba ñu doxee tuuti nag xare ba nga xamante ne Seydina Isa bokkoon na ca te te te te Seydina Aliyu gañe leen ñu noppi nag si si si Seydina Aliyu daal di ne kat léegi nag ah alal ji nag kat moom wase lépp ñi jógee ci ci xare bi kenn du ko kenn du ko séddale am kuréel bi ñu ko wax waa yow naka nga nga nga ñu dagandalee seen dara bu noppi di ñu ràmbalee seen alal xam nga loolu logique xel day nangu ne ah loolu loolu mu fekk ni deret deret gën a fort waaye di yónni Seydina Abdul Bilam Abbas ne ko demal nga waxamaan ñoom gars yi dañoo dem ca ñu ko xawraa benn benn tund dem dem toog fa kuréel bi wax loolu mu ne ko ba ba demee wax ne laajal ma yéen waaw yéen yéen wasa leen bi ñu ko séddale woon Sayyidatuna Aïcha umul mu'minin kenn ci ñoom maanaam léegi muy muy wàllam nu mu koy def ba mu demee wax ñu ko gars yi daal di loom waaye teewul ñu ñu for ñëg daal di toog fa loolu loolu muy tudd alxawaari xawaari moo xam ne mooy ba tey benn parti politique bu bu bees amoon nañ murji après nga xam ne ci saaba ya ngi da taxoon léegi amaan nañ fii benn parti bokkut ak ñaar ñi saaba yi xeex te tegoon mooy alxawaari mooy xam ne dañoo contre Seydina Aliyu contre Muawiya moom daal di sax suñu plan kon léegi ñoom daal ngir islam am jàmm nañ for boomu Aliyu boom maanaam Muawiya daal di jël kii ne dañ leen di ku yàlla dogal for bis ba nga xam ne Seydina Aliyu moom Seydina Aliyu moom moo jiite si jekk ci fajar ak ak ak Seydina Muawiya waaye Seydina Muawiya bis boobu moom ñëwut dafa am ngànt ñëwut Seydina Aliyu di ko moom daal di koy boom noonee waaw kee moom daal di rëcc loola moom di di di ay problème yu mag ba loolu juddoo Seydina Aliyu nga xam ne ay gaayam moom ñi nga xam ne ñooy ay dongaam ñoom li daal doon ñoom it judd leen ay chiant chiant mooy militant nga xamante ne ñoo ay dongab lañ kon kon kon kon léegi Muawiya daal di daal daal di fexe kon léegi am na doole nag kon Fatima ngi fi ginnaawam ba kee daanoo kon saa bi rek daal di daal di ñëw ci moom daal di taxawal gouvernement ba léegi nag ñooñu ñooñu parti Muawiya nag moom it daal di daal di juddu mu tudd leen ahlu sunna parti Seydina Aliyu tudd maanaam achian parti politique képp la politique la ba ba loola juddoo ñu dox tuuti ba ca Seydina ci Xasan moom dafa leeral loolu moom léegi tool yu bari kenn ku ne ne ko yow kat yàgg na na yoo ngóor gi nangam nangam ci Muawiya ndax ay critères yu bari sang gaag sell gaag xam-xam baag judd bu rëy ba lépp mu am ay dongo yu bari yoo xamante ne dongo yi maanaam léegi bàyyam ak ñëpp topp ko ak ñu ëpp ci jur ñi ak albadri yu yi xam ne saxaaba yu bari yoo xam ne teewoon nañu Badar ak Uhud ànd ak ànd ak moom am na yoo xam ne seen Aliyu ci xare mi daa xare ñetti téeméeri Badar yi daan nañ ca teew ak loolu nga xam ne kon kon daa kon lépp ñëpp teew nañ muy lu rëy rëy Seydou Duna la ci Xasan daal di ne kon Muawiya daal man léegi man man na man na man na maa bàyyi ngóor gi jox la ko man léegi du xëccu du ma nekk du ma sa waaye nag leen sart bi daal mooy saa boo fi jógee léegi bàyyil julli ñu ñu tànn ku leen soob ndax alxon ne wa amru shura baynahum amum sura ba bay na moom loolu wax kon kon léegi ñuy do Muawiya daal di nangu ku ne xam ne ne ci ci ci la ko jiitu tuuti mooy seen si Seydina Ali yoog Omar ibn As na na nga xamante ne moom lañ ko moom moom lañ fexe ba ëpp ku Seydina Seydina Ali ak la la ko jiitu sax Seydou Seydina Ali yoog Seydina Ousmane ku ba ñu ko defoon bari loolu moom ju gudd la waaye fii rek si Seydina Xasan daal di koy daal di wax loolu Muawiya ne kon nangu naa xanaa ëpp politicien politicien nga xam ne moom nangu naa ginnaaw tey tey moom li sama intérêt la kon naka nangu boo léegi ñu wax leen maanaam ba am na sax addis boo xamante ne allahuma laa mania lima manata wala moti lima allahuma laa mania lima antayta wala moti lima manata wala yén fa sal jëddi mi ngi koy jiddu sal jëddi mi ngi koy jiddu sal jëddi mi ngi koy jiddu xanaa nga ne si naa Muawiya daanaka wax ca men bar ba di ko di xutba tàmbalee ko naan kat gaa yi ibi daal yàlla moo ma jox nguur kon ku ma ko jox kenn mënatu ko nangu ku ma ko ku ma ko xam jeex na loo góorgóorlu góorlu loo am am sens doo ko doo jot mooy xadis boo xam ne Seydina Muawiya moo ko doon ne sax maanaam léegi ñu ngi koy jël na Seydina Muawiya ku ne xam ne moom it ab sahabi la kon moo xam ne dañ ko nangu waaye ñu ñun ci xam-xam nag ñu xam lan mooy contexte ci xadis bi doote ne dañ ko nangul force ndax ndax kilifa la kàngam la ba loolu la amee si Seydina Xasan daal di koy jox ngóor gi moom léegi Muawiya doon kilifa jul ñëpp parti bi mu ngi tudd léegi parti Muawiya bi mu ngi tudd léegi ahlu sunna bi mu yilifee lépp nag di ko ahlu sunnati wal jamaa lu am am solo la ñu xam ne ahlu sunna kon kat parti la turu parti la boo xam ne juddu woon na mooy ñi doon mooy boo xam ne ñi nga xam ne ñoo jóg di layalal ci Sayyiduna Muawiya ba mu demee ba Asan ba Sina Asan bàyyee ko nguur gi lépp moom léegi ñu tuddee at moo xam ñu ne amul jamaa at mi jul ñëpp ne nekk benn Sayyiduna dudd ay théoriciens nag daal di ko ci teg ni kon kon kat ahlu sunna ci kon wal jamaa danañ toog tuuti ci kanam ba xam léegi ahlu sunna wal jamaa day wéy mbir ñu bañ doxee nag loola coow li am kon murji ñoom ñu nga fële chian yi am nañ ay firax yu bëree bëri ñoom it seen biir mooy mooy dongay si seen doon journal yi ndax parti politique yi day daal di am ay parti ci biir juddu ay wala boo ko ay cellule yoo xam ne ni day day judd kenn kenn ku nekk am saw déggin dangaa war a dañu war nangam nguur gi wala dañu war nangam dañu war a négocier muy yu bëree bëri ci coow lu ci coow lu bëree bëri juddu léegi nag ñu dox a dox nag ba ci ci kanam maanaa léegi gi nag gaa yi nag di xool nag mag ñi ne waaw léegi léegi aqida bi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wasallam nekkoon ak saxaabaam yooyee yan la ginnaaw xare yi yëpp nag coow lu bëri li xuloo yi rayante ci biir saxaaba yi du ñu naam léegi nag gi nag motisi la suñu bal dana ko junj junj ñoom bi nga xamante ne dawal islamiyya jaar na Paris Inde ba Chine fépp du dugg ci Afrique Éthiopia ci l'islam jiitu ginnaaw ginnaaw Madina ku ku ne xam ne ko Misra ku ne te foofu ay nasaraan ñu ñu fi nekkoon théologie ñu tuddee théologie amul kalam bi ñuy wax maanaam léegi fa la jóge ñooñu ñoo provoqué jullit ñi ba amul kalam juddu théologie juddu ñu ne ca léegi nag maamun ca xilaafam nga mu di mu indi baytul xikma daal di pour léegi logique bi nga xam ne moom la bouddhiste yeeg jainisme yeeg yoga ak ak ak maanaam léegi nasaraan yi ak yahudi li ñuy li li ñuy théoriser seen diine pour layale ko ne dëgg la weddi suñu islam mu ne mi ngi gis mu gis ne moom kat ñu ngi ko sukkandikoo ci maanaam léegi philosophie la philosophie te grec yi booba seen téere jege ak téere yi inde yi téere yi chine yi ñu daal di jël lépp wut ba wetu xikma daal tabax benn benn daara joo xamante ne day saytu yooyu ñu traduit ko en arabe ba borom xam-xam yi jur ñi mën koo mën koo jëriñoo ma mën a wax ak ñoom ci la ko ndax ku ne xam ne ne doo ko nekk doo ko nekk naan xaarata la taxaala boo ko waxee ñëwee suñu bi noonu gëmuñ ci wax sa taxaala ñun gëmuñu ko suñu suñu taxaala lañ gëm doo ne xaarata la ñu ne kooku waxuñu waxam su su loolu xol yi bee fàttali ngeen ko bay doon alayhi salaatu wasalaam di bind ba ñuy bind maanaam léegi la ñu diggaale ñoom ñaar te mu te si si si naa bi bind Mouhamed Rasulullah ñu ne ko kat bu ñu xamoon ne lu la kon maanaam léegi du ci ak yow yéen tamit xam ne ko far ko moo gën a Mouhamed ma Abdullah ko kon kon kon ab logique la. ñuwaay di ñuwaay di def loolu gars yi nag nag moo des la ñoo ñu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo jàngoon falsafa gën gën caa ràññiku lool maanaam daa daa coow ak ñi nga xam ne dañoo dugg ci biir islam ji force ndax état bi islam bi muy ubbee am ab dëkk ñenn nañ seen ñoo ci julit waaye julit ñi ñoo yilif waaye waaye ñëpp duñu ay julit madina noonu sax ñëpp duñu ay julit ay ñu gis ay siblañ léegi nag ñoom ñooñu ñu am droit wax nag waaw am droit exprimer wu seen xalaat seen pas-pas wane ne kat ñun suñu pas-pas gën a moo gën seen pas-pas bi day ci am droit nag léegi wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan avant neen wax ne nangu nañ ko waaw nag nag dialogue entre yéen ak yéen bu ko diine waaye su boobaa nag nay nay dialogue bu baax ku ne ndax ginnaaw yéen ab ñooña dañ naan ab yoon suñu yonent yonent bu yàlla la yàlla lañ gëm yàlla ngeen gëm suñu yonent gëm ngeen ko yéen ba noppi kon kon suñu leen koo saaga kon kon du ngeen seen wax wax lu lu baax kon débat bi kon dafa war nekk débat bu bu kawe lëkkum jini ko wari din mooy mooy débat bi loolu wax na wax ci ko nga xam ne kat kenn kenn ko ne daa am jini gëm ko kon nag sëñoo koo forcé la laa ikraha fi diin force moom amul ci diine parce que moom kenn ku ci forcé kenn ndax da fo gëm-gëm mooy ali mooy nga nangoo ne lii moo wér sa xel nanga ko soxal nanga ko loola kon am moo tase la liggéey ci liggéey bu bu foor ñu dox ba yàgg nag ilmu kalaam question yi day juddu ay question yu bari juddu ci nit koo xamante ne waaw dafa juddu doon ab yéefar su bis pencee ndu ko yàlla atteeg nangam nangam kii daa gumba kii nangam ay ay coow yu bari daal yoo xamante ne ay ay xisa la yoo xam ne mën naa wér mën na mën naa bañ ñu wér kenn ci donga ya mutasale yi al imaamul ashari yi nekkoon ci ba ci yàgg daal mu gis ne daal léegi théorie yooyu nga xam ne ñu ngi ko tudd tekki philosophie maanaam li gënoon na na gaaw mooy delluwaat ci alxuraan ak sunna rek mu bàyyi génn moom ci école booba école rek école la ba ciy génn daal daal daal di taxaw fee ne ne ne léegi daal léegi dafa bëgg indi rek loo xam ne alxuraan rek directement moo koy wax loo xam ne hadis rek koy koy wax ñu daal di koy indi mu daal di mu ab école daal di juddu ni nga xam ne montase la ñu ngi juddu woon ci Hasanul Basri yi maanaa ca maanaa baydal man si la tey nii waa yoo xam ne faasiq la di sonal nit ñi mooy umara yi prince yi di sonal nit ñi kooka moom dina sàngara di ko biir di ko jëmmeerlu kooka ab julit la wala wala du du julit asanu bés yi moom danañ kooka sax ab julit la waaye nag faa seq la say say rek la kii nag ne kii nag ne moom maanaa maanaa léegi wasilu lum no atta di dongaam daal di dugg béro fee daal ne waa ji kaay man wax la sama xaar sama xaar daal mooy kooku moom du bu yéefaru du du ab julit bañ na man seete yi nii mi ngi ci diggante ñaari wàcc waaye daal Seydina Fatou Basi daal ne ah intéressé la naa waasil ñu ne kon moo tasi la loolu it mën naa xisa boobu it mën naa bañ a wér noonu nag ndax loolu ba tey xaw naa ci coof jumbul waaye nag noonu lañ ko historiens yi di waxee. kon moo tasi la kon léegi al imaamul Ashari daal di daal di jóg moom wut ab école noonu noonu noonu waasil defoon rek da moom rek daal di ubbi ab ab école am. école bi mu kitaab ak sunna école am bi wuute wuut ak école ba ba mu jógee lu may ci ay xalaat yu néew mooy ñoom kat mutasila ba école ba mu génnee dañoo jàpp ne pour ñoom bi ñuy wax ak kudul isbjud ñu ko ñu ko léegi alxiyam valeur yi dafa sax xel moo ko xel ko nangu xel moo xel moo xel moo moo xamle ne nanga ma bon nanga ma baax lu xel la baaxal baax na lu mu bon a bonoon te te xel du wóoteeg yàlla ndax yàlla moo ko programme loolu ku ne xam ne ne leer na ak it léegi nit ki moom jëfam moo koy maanaam léegi en tant que mas'uul responsable kon jëfam moo ko moo ko moo ko moo ko def duñ ne kat lépp yàlla rek noonu yoo xamante ne léegi yow booy sagal nit ki ne ne ko yàlla kat moo tax ma saaga la déedéet loolu Aliou Omar Sarr yi moom ba mu ji dikkee moom moom it am na ci problème daal ne kat suñu boobu moo dogal jëf ji waaye jàmbee ko sabab lu nga xam ne loolu ay théorie la philosophique la waaye nekkul lu xaw a am solo loola. léegi te ku waaye sax ku nga xam ne débat bi kon ci ci kaw la ñu ñoom cadre yi ñoo doon débat cadre yu ak cadre yu jurit al imam ci Ashari daal di teg loo xam ne kon moom wuti wuti ñenn ma bàyyi di yi principe yu mag yi nga xam ne moo fande islam Ashari yeeg dara ñu jóge Mu'tazila ak Shia yaag ñëpp kenn wutewu ci ñun ñëpp ñoo bokk pas-pas bi alxuraan ak ak masaxa mi mi ne sunnati lu wér ne yonent bee ko wax waaye nag coow li kon lu tax ñu tuddee asalafi yaag mo ak wahabiye di di daal al Ashari nag nagam nagam point bi point bi nga xam ne mooy point radical bi nga xam ne ñoom mooy seen problème ak noonu ndax ñu ndax ñu ëpp ji ñëpp almasahibul arban yi wa waa kas almasahibul ashra yi masahib yi ëpp nañu fukk yi ko jiit woon yëpp yëpp ñoom ci li ashra yi wax dong la ñu wax ndax lu mooy li tabiya yi nekkoon waaye nag dafa am problème ci ilmu kalaam bu bu juddu mooy waa ahlu sunna mooy mooy mooy parti moawee bi bi ñu nekkee di noos di noos ba réew mi yàqu ni ñu sonn ñu ne déet léegi nag ku dee ku dee yàlla murte na déet dafa am ñaari dig dig boo xamante ne waa ji dig bu yàlla bindal ak dig boo xamante ne bu bu bu sàgganee faatu ca dafa am ñooñu gars yi ne déet dig bi moom benn la ku dee rek yàlla dee kon léegi état bi moom bu deful li ko war sundul ci nit ñi pour ñu dund boye boo loolu lépp koy maanaam yàlla gàddu lépp pour se la moom lànk ku ne xam ne loolu moom birut waaw maanaam léegi nag ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo gën a fis nag ginnaaw mois wi ak ay gaayam ñi ñi nga xam ne ñoo jël rafet bi drapeau maanaam léegi parti mois wi bi mooy cheikh islam ibnu taymiya rahimullah cheikh islam ibnu taymiya ñett la dafa am cheikh islam ibnu taymiya dëgg-dëgg mooy as suufiyu az zahidu al alimu al allaama al mutabaxir fii ak saril ulum kooku mooy cheikhul islam ab cheikhul islam moo xam ne Ibn Taymiya moom moo xam ne dañoo jël ay ay ay téeréem ci maraaxil ci étape yu bari ci ak dundam téere ba mu nekkee gone waxambaane nangam magat ñu jël ko lépp mool ko tànn ci lenn ci ay xalaatam yoo xam ne jumbul ba mu koy wax booba gone la jox ko jox ko parti bi ngi ñu téléservice ñu ñu koy mokkal di ko tari demal ca fataawaam ya demal ba nga xam ne moom la jagleel tasawuf lu yéeme yéeme la tasawuf la li mu ci am na lu toxta bu ci yéem loolu sax mooy jël na waxi Cheikh Khalid Jilaani yoo xam ne dana yàllaa ne ma mu jël waxe ja fonk ko fonkin woo xam ne sax di ko sax firi loolu kon mooy Cheikh Islam suufi yu Cheikh Islam yi nga xam ne mooy alwahabi yu mooy mu Cheikh Abdou Cheikh Mamadou Abdoul Wahab maanaam léegi interprété moo ko doon am kooku nag mooy mooy Cheikh Islam Ibn Taymiya mi mi mi indi problème bi ñoom nag moomu nag Cheikh Islam moomu nag ak wahabi di ñoom dañ ne léegi nag arab làkk wi amul lu ñu ciy interprété làkk wi bu arab waxee li mu ci jublu benn la yadulaay foofu foo koy diyam ñi kon mooy yàlla ama loxo nu ñu loxoom ñëpp rek maanaam léegi yàlla istawa ala si yàlla day diju ci ab ab ban maanaam léegi ñoom nga xam ne ne ñoom léegi ko ñoom istiaara majaas lañuy la ñuy dàq ñun jul ñëpp nag ñëpp àlachanre yi bi moom bokk na ci mën a jëm nga xam ne moom imaamul junne di tabiin yi maanaam léegi ima yi yëpp si naa liu karam la wa ci saxaaba yi yëpp li sax ci ñoom lépp ñoom mooy ñoom nangu nañ ne majaas dafa am ci alxuraan maanaam lakk sax lakk yëpp la law lakk moom maanaam la aw lakk mënta wax lépp lu dul benn baat lañu koy solal ay mbubb yu bare contexte bu nekk baat ba firi fa nangam mu dul loolu aw làkk kon du xaj maanaam adduna bi mu fa daate pièces yi adduna bi composé woo mën su ko wax ci aw làkk pièce bu ne ñu ngi jox ko tur kon kon du bidéo loolu nag kon principe boobu nga xam ne majaas am na ci alxuraan abbal maanaa ab baat loolu ñi ëpp jur ñëpp ko nangu waa bidi yi xew na Abdou Wahab ba ci dongaam lànk ko ñoom nag ñu àgg ci ne képp koo xam ne nangu woo ne maanaam naa léegi arab alquran lu mu wax da koo jublu noonee mu yàq ba yéefar nga képp koo xam ne nangu woo ne kat arab alquran amul abal maanaa yow yéefar nga kon kon noonu imam malik ak Saafi abu xanifata ahmadu anbal ñëpp rek ay yéefar lañ képp koo xamee ne maanaam léegi ab chien yi nga sida yu karamalaw ca saxaaba yi ñëpp rek ay ay yéefar lañ ñoom nag ñu tuuti ñooñee juddu bëkk démb ñoo ñu nga xam ne ñoom ñu ñoo ne ñoom alxuraan li mu wax rek ci kaw yeddu lay foor mooy ab loxo rek loxo nii ah istawa alaras yi mooy yàlla day toog bu ñu ne istawa la ñooy déedéet yàlla du ne daa déedéet daa toog yooyu ñooñu ñoo wax ne ku dul ñoom yéefar nga te noonu te noonu al ash'ari nun ñii ñi nga xam ne ñoo yor pas-pasu alxuraan ak sunna waaye pas-pas boo xam ne alxuraan yoo xam ne dafa aaje baat yi da nga koy abal maanaam waaye du ne baat bi ni ko arab bi waxee noonu ca bu njëkk ba noonu la ñooñu kon lañ tuddee al al ashayira kon ci tënk kon wax jàngoog maanaam coow li dëgg du ab ashari yi wala dara coow li dëgg mooy principe bu ni ñuy interpréter alxuraan seen principe ci loola seen philosophie ñoom wahabit yi dafa wuuteeg ñi ëpp ci jullit ñi. loolu moo tax waaye yee wahabi yi ba bëkk démb rek lañu Cheikh Mahamadul Abdul Wahab bëkk bëkk démb la waaye nag milliards yu bari yi te ñu nangu ko saa def loolu loolu lay wax kon daal li li li gën ci koo xam ne yow lii nekkul sa domaine li li gën yow mooy rek ci nga jëm ci sa ilimaan comme bu dee ab murid nga sëñ Tuubaa lam ci wax bu dee Alaaji Malik bu dee Baay Ñas nga bu dee koo koo doon boo dee ab chien nga ñëpp ñoo bokk lu ñu fas ci ci ci suñu borom kon nag yaakaar naa sax incha allah beneen yoon Mourou Diop di doon wax naan chien yi moom it jar nañoo leeral ba xam ndax daal ñi ko nit ñi di coowe te mel ne mel na ne ay julli ñoo xamante ne ñoo bokk pas-pas kon ndax Jafaru Sadiq mi nga xam ne mooy sëriñu imaamul junne yi di ñun ab chien yi la loolu dañ ko leeral ak ay imal al yëpp kon ko daal ci tënk kon asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh